wëlbatiku nag tuddee ko dafa bari li muy def mi ba léegi chaque mi ngi seetlu yëkkati Sénégal chaque jour mi ngi seetlu rafetal Sénégal bu koy def kon nag dañ koo war ba ñëpp yëpp baax lool yarul lool soxnaam baax Marème Faye Sall première dame. bu doon fonk ñu yëg ñu kon bu ñëwee ci bis bi ñu ñëw mu dem suñu directeur général sa Ablaye Koundoul li waroon na artiste yi ñëw waroon na restaurant ñu ñëw dañuy boole dérangement ak déplacement ñëw di ñaan yàlla nag président Macky Sall yàlla na fekkee lépp yàlla yàlla oyof lépp lu bëgg ci yàlla ko yàlla dooleel kattanal ko mu dem yàlla defal ko di barke Sëñ Fall waaw doomi géwél laaj temps bi rek génn naa beneen jikkoo di nit les valeurs clip naa ko way naa beneen way bu bees tàkk ba clip ko mooy jikkoo jikkoo di nit waa Sénégal bu nu perder valeurs yi ndax valeurs yi waruñu ko pergal valeur yi dañ ko war a téye dañ ko war a jàpp dañ ko war a dox ndax Sénégal valeur la xam way naa way boobu maa ngi ci yeneen macha allah wala rek ci di nag ba ci yéen am nga boogaa mbaay sama caat ba foofu la nekk may yéen di ñaanal yàlla ngeen yëkkati ca kaw rajo nekk ci Sénégal yëpp fu ñu mus a toll tubaarkàlla ci yëkkatiku rek yàlla leen ci yàlla boole ci barke Serigne Fallou Ba nga nuyul ma boogaa bu <laughs>